jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm di leen wax na nag tey ñoo ngi fii wakaam seet si ki nga xamante ni ndaanaan la ci wàllub làmb champion la euh, muy mujja su ma nee mujja nag xel dem ci yoof xel dem ci wakaam xel dem ci ngor xel yi dem fu ne waaye nag dafa am bés boo xamante ni bés bu rëy la moo dajante ki nga xamante ni mooy caatu euh, booy bamba ba ki dem jëli naa ko mu waxtaan ak ñun défulé wu kaf ay supporter mbalak tey nag moo tax waa ñu andil leen ki nga xamante ni mooy adversaire di Modja xanaa dañ koy bàyyi mu nuyoo ñëweel waxtaan wi. Modja nuyu naa maa ngi lay fay Ouzin di wax bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah di nuyu uh, fi ngeen ma fekk muy Saalu Kanté di la nuyu yow ak sa caméraman beeg ñi nga àndal di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan particulièrement ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel muy axlul kunti yu li ko daggee ndànk gu yett sanc na ndeer ba yëg si njaasaan di ñaanal sama xalifa cheikh al bekaay wulu cheikh al bekaay wulu cheikh bu mouhamad kunta mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sama sëriñ cheikh mahamad rafael wulu cheikh abdourahman bu ak rakkam ji xaas boubacar kunta ak allaaji sidi muxtar wulu baay bu ak njabootu kunta gi yëpp maa ngi leen di ziar di ziyaare ñi nga xam ne ñoom ñoo may yónni fu ma dem muy waa yoof bu ma amee ndam yoof moo am ndam bu ma ñàkkee ndam yoof moo ñàkk ndam waa Ngor waa Wakaam amuma seen fay maa ngi ziyaare fépp fu nga xam ne nit mu ngi fa di ma bége li ko dagge tundu jandeer bi yëpp njar mburit njar Tidiane Morolan kër Ndiob kër Baaba xama képp koo xam na mu may bége daal maa ngi lay ziyaar. mais te ma ñëw fekk la bi moment bi balaa ñuy wax da ñaata séance ngay def. waa deux séances rek. matin ma ñëw saal ngoon bi ma dem si gars yi écrit ba. mais ñu fàttali leen ko caat euh, lay dajal combat bi bi mu taxawee boobaak léegi def na plus de un an. waaw waaw def na plus de un an à propos du Covid moo ko yóbbu foofu quoi. mais moment bi euh, sa adversaire demoon na États-Unis na ji ñëwaat mais balaa may ñëw sax ci moom euh, ñu fàttali ñaata combat nga jotee def. man def naa 17 combats. ñaata victoire am naa cinq défaites douze victoires. douze victoires. Euh, bu baax waaw alhamdulilah c'est mieux. Mm-hmm. mais sa adversaire nga am ko mu demoon États-Unis nee na sax avant muy dem daggoon na ba noppi mais comme que dafay toog defu dara mu dem entraîné ji ñëwaat mais nee na yow sax taxuloo ko dem nan nga nan nga gisee loolu du seetaan nga ko. waaw seetaan naa ko mais bon loolu moom la engagé man euh, maa ngi fii daal di entraîné que moom mu ngi dem na États-Unis man maa taxoon mu dem u dafa demoon pour liggéey u dafa demoon lu mu fa mënoon uti rek am na si droit et puis moom la engagé quoi. lan moo tax nga jël ko. c'est parce que bëgg a ak moom pour daan ko évoluer yokk sama yoon. yaa ko bëggoon wala dañ la ko dañ la ko proposé. non xam nga làmb mooy doxee noonu promoteur bi moo def choix am xool na ñaari mbër yi combat la rek mu mu dox ko yàqoowul si man yàqoowul si moom combat bi taxaw. waxaale bi métti woon. non sama côté noonu. ci côté am man doon nañ ma xaarloo mais sama côté noonu. moom moo doon am yu mu doon xalaat ak di jiixi waaw waaw xam nga nit kon mbër bu nekk am na droit ni muy jëlee combat moom moo ko xam quoi moom moom moo ko moom la engagé moom ay mbokkam xëy na loolu moo xawoon a tardel affaire yi quoi. Mm-hmm. maa ngi koy dégg keroog bi ko seetee nee na foo nekk mu fekk la fa te dina la duma ndax taxuloo koo jóg li mu entraîné moom nee na xalaatul sax mu nekk pour yow. non yooyu ay waxu mbër la yooyu ay waxu ay waxu naxante la quoi c'est des batailles te nekkatuma xale bu caat di nax xam nga donc man wóor na ma li wér te mooy caat du ma fekk si man maa koy jëli ji si kàttan suñu borom. caat ak li mu wax yëpp ab li ñëwee mu taxaw di la déglu. kenn masul jëli kenn. Ousin neex ko mu naxari ko xam nga dañuy wax ne xeexu njaago du jeex. Mhm. mais juree lebu amul limite. day jure par force. luy loolu. juree. waaw moom na ko laajte. déedéet mais ñi bëgg ñu xam luy loolu. <laughs> non na ko lijjanti moom la engagé. ah bëgguloo mu jotee ko ci yow. day juree par force mu neex ko mu naxari ko. mais combat bi est que xam nga ne du yomb ndax buggaan nañ ko tuddee ambiance dina fa am nit ñi dinañ wuyu si te combat bi fi mu toll ñëpp dañ ko commencé xaar te ñëwagul. waaw waaw waaw loolu ñun njort loolu parce que promoteur bi man na événement ñi ma ko tuddee itam mën nañ bés des ñëpp xam nañu lu ñuy liggéey si làmb bi bon dañuy lancer appel rek supporters yi côté Yoff ak fépp fu ñu mën a nekk di leen wax ne nañu ñëw en masse mais si discipline. Hmm. parce que soxlaawu wuma fa ay coo histoire nangam bu dee xeex la di du ay question da xeex sax mais juree daal dinañ ko def si biir géew ba mu saf sab yow ak moom. Mhm. si kattan suñ borom. ba mu saf sap si kaw daal da ngaa bëgg ñu taxaw supporter tàccu fecc. li ci des ñu bàyyi ko. sol lu nice toog si kaw. ñu yëngal ba mu yëngu ma jure si suuf ba mu rëy ma daan ko jël bu rëy dem ñibbi si kattan suñ borom. te fi mu naa bi mooy sa premier combat à national. waaw waaw waaw bi mooy sama premier combat foofu. mais wàccaay li métti na. waaw métti na moom métti na parce que saal bii moom Euh, ku ko xamul itam dégg nga ko waa ji fi nekk amul yërmande si sportif moo daf lay teg lim la war a teg ñun aussi ñu doon ñoo xam ne nangu nañ koo tegoo di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo am def nañ lépp lu ñu war a def euh, entraîné nañ euh, ànd nañu ak suñu ay mbokk te ñaan nañu suñu borom am nañu yaakaar ne dinañu nangul. mais keroog dama koo seeti nit ñi bari fa mu am ambiance neex ma envoyé la ko nga seetaan ko lan nga ma jox nga ne ma dajale na élèves yëpp ñu ñëw taxaw. waaw waaw lu ne fàng kenn du ko jee ay élèves yi sol seeni saak ay booy koñam yooyu doon boo ñu boo bu ma yóbbu woon yoof tey dafay mel ni sabar gu tas mais loolu amul sens bu ñu naxantee te ñooñu ko dar noonu ay supporters am nañ am nañ droit jubilé def ainsi de suite mais bu arbitre bi soufflé rek caat xam ne lépp dëgg la. ah maa ngi ko dégg de nee na ma taxaw kaa jóg Malick Niang mi wax naan sax. na ko toog xaar bu la daanee ba pare dem jëli Malick Niang mais ko jóg man li ma ci jaaxal mooy daf la dala xaw ma dala xaw a xeeb wala dalay sous-estimer. non xam nga nit kuy ñeme ñeme lu la rek. caat na ragalul de. nit kuy ñeme ñeme lu la te bu ñu bëree ba pare maa ngi lay invité waat nga ñëw jël ma caat di nga di nga di ne xalaatu woon lii caat day ñeme ñeme rek. yi muy wax amul benn njariñ ay ay ay ay ay taxuma koo jóg ay taxul woon gan gi taxul ma lii pour gars yi di yuuxu di zibile di waaye ça n'a de sens. ce qui est l' essentiel mooy entraîné naa bu baax a baax a baax te barke Mouhamed bu arbitre bi soufflé caat xam ne <laughs> combat bi ñëw rek a kasi boole. ba li nga wax incha allahu rabbi ñëw rek a kasi boole. mais Modou Dia lan la da nga décider moment bi parce que ni ma dégg ngay waxee nii daawoon waxee noonu mais moment bi da nga décider lan la. non est le moment parce que tamit man maa ngi bëgg a def dix ans de carrière xam nga am ay nombre de combat Euh, euh, bon du ma ne samay morom dañu ma raw sax parce que man booy xool ñi ma ñëwandool si làmb yëpp benn palier rek moo ñu séparé caat mii may bëreel nii bi muy bëree man bëreewuma donc kon maa ngi def benn évolution mais c'est le moment ma atteindre beneen niveau. parce que tamit dama doon ko xamante ne dafa ñu yaakaar si man dafa bari man dëkk suñu borom laa yaakaar yàlla bu suñu borom si yaakaar mais c'est le moment ax lu mën a am ay waat sax baaxul mais lu ma la mën a wax mooy sama bakket laa teg si làmb bi. wàllu mobilisation fan ngeen ci toll parce que yéen moom bu ngeen jógee waa Yoff gépp jóg lébu gépp jóg foofu fan ngeen ci toll. non combat Modou Dia bi combat bu nga xamante ne euh, Yoff am na lu mu leen jaral quoi man su may liir stati yi wala may romb nit yi sax damay xam ne lii am na lu mu leen jaral ñoo xamante ne séqu woon sax bon du ma ne xuloo quoi mais séqu ñu woon ay jokkal maajoo jokkaleen mais dañuy ñëw ba si man ak ak xool quoi wax man ma xam ne ñii ñu ngi koy waaj d'ailleurs dafa am ay volonté yu nga xamante déjà engagé sax pour jënd ay blogu bi yoo xam ne dew ma sax c'est envers ñoom mais ñoom ñoo ñëw envers man kon donc am na lu mu leen jaral quoi. ok boo gisee loolu boo ñëwee entraînement nga xalaat maanaam ki nga tasal mu ne la mujja nangam nangam boobaa lan ngay lan la la gën a def ci wàllum entraînement. oui je m'entraîne avec la rage. ma xam ne tey jii nii du man ma si kattanu suñu borom daal bu arbitre bi soufflé lépp lu nga xam ne war na ma dinaa ko def si fulla si fayda si jom si ngor. lii moom mën naa ko assurer moom du ma ëpp entraînement du ma ëpp sañ-sañ si biir géew bi te am naa sama décision. ambiance bi parce que am ñoo xamante ne moom tous dong leen fa andi. effectivement loolu sama gars yi ñu ngi si man maa ngi si mais lii gën a wér te wóor mooy biir enceinte bi du ma ëpp entraînement kattan du ma ko ëpp social bi tamit dinaa def ba def lu nga xamante ne xëy na moom xamu ko. ci wàllu mystique bi. lu mu ma jaral moom jaral ko billaay walaay lazim. ci làmb ji nii. ci combat bi as yi ma jëm yëpp. dinaa entraîner aussi ba bon bu ñu nee runkum. non nii nii sax ku la gis moom SA dafa moom macha allah. kon nag euh, des na quoi des na deux semaine lu nga xamante ne dafa war a diir. mais deux semaines ba doo ci liggéey lu lay tooy. no du ma gaañu parce que <laughs> nekk naa si macha allah. gis naa fi mbër yoo xam dañuy bàyyi ko des une semaine dootoo leen gis ñu ne dañoo blessé de. ah ku nekk ak sa décision mais du bii de bii suma ma su ma su tëddoon sax dinaa jóg dem bëri yàlla tere su ma waroon sax dinaa forcer dem bëri ji. Thiat <laughs> yaa ngi koy dégg dégg nga dégg nga dégg nga ni mu waxee nee na combat bi moom ñëw rek def fulla ak fayda. incha allah loolu amul beneen hésite bu arbitre soufflé damay dëggal sama bopp du ma waxuma comme ay di ko jéemal lépp ay yoxu mbëri yooyu doon bu arbitre soufflé noonu la ñuy def dañuy wax bu ñu ñëwee taxawee lu ma wax nii loolu laay def caat na taxaw dinaa bëre dinaa daan bu arbitre soufflé damay dum si kawam amuma sax lu may xaar si moom ay yooyu déedéet amul calculé wu ma si moom doole. est xeex dina ci am. dañuy juree nga ne man xeex dañuy juree mu neex ka dañuy jure mu naqari ka dañuy jure. <laughs> mais loolu tuq sa bënn saañ mbir lay nekk yow caat ngeen taxaw jàkkaarloo teg doo doo teegi. mbaa kaaw du ci am. bu ñu dóorantee kaaw bay na bu ñu bu ma ko dóoree. barke Mouhamed day ñëw samay tànk. day jébul. <laughs> lii man maa la ko Ouzin te reporté bi ngir yàlla rek day suivre li ma bu ma ko dóoree day jébul samay tànk. lu leer laa la wax te amul hésite dama koy dóor. fu mu ñëw dina fa dekk loo xamante ne. mais mais man li ma bëgg xam li ma bëgg a xam mooy li ngay wax nii dañ la ko déey wala dañ laa woo ci ko wax ak yow moo tax ngay waxee nii wala nu mu demee noonu. des décision bi nga xamante ne man maa ko jëlal sama bopp man kafuma fowuma réewuma kafuma kafluwuma lenn rek laay jógale samay supporters mooy discipline respect. ñu toog xam nga bañ a yàq parce que yi am ay arène nationale en ce moment nii sabotage la quoi yooyu ànduma si ku ko def itam defloowu ma la ko. yaa ko def ak sa propre moyen xëy na bu bu bu bu buñ ko defee bu bu toor bi de am sama kaw lay dal parce que maa leen fa indi mais ku ko def itam xamal ne tooñ nga ma defloo ma la ko mais li wér te wóor moom mooy lii ma la wax si biir enceinte bi si kattan suñ borom loolu laay def. doo ko tànk. xalaatuma loolu bu dawul du ma daw tax si kawam laa jëm. boo boo ko defee ba du la nax sàcc la jël sa tànk. man lu ma la wax leer na dama koy dóor te su ko dóoree samay tànk la jëm. kon daal su ma déggee loolu moom jot nga koo liggéey ba noppi. day weer boppam. <laughs> Ah, mais non li ma bëgg xam mooy da nga da nga seetaan combat caat yi xam ni muy bëree ba noppi moo tax nga bëgg koo duma mu jël sa tànk wala. man moom su may préparé komba dama koy préparé physiquement techniquement dama koy préparé aussi psychologiquement si ay vidéo ok. nga nit ah mën naa wax ba wax lu mu manul mais du jëf mukk lu mu mënul. mën naa wax ba wax lu mu mënul. mais bu jëf jotee li mu mën rek def. waaw te nga fan la jom ne fan la sportif ne ki la ëpp jom gën laa endirant moo la ëpp jom si an si si si parce que ku sonn bàyyi. mais su ma déggee nii ngay waxee dafa mel ni dafa am loo jàngee ci làmb lu ba ba même boo ko mokkalu sax daanaka léegi nga mokkal ko. mais c'est le moment may évoluer grand. c'est le moment dafa am foo xam ne dama fa war a dem xëy na maa ngi nekk écrit yoof nekk fa ak suma mag Malick di ko ñaanal mu am combat am si ay ndam nekk fa mais dafa am suma ay rakk yoo xam ne euh, tey jii nii ñu ngi def ay pas def ay jéego. te tey jii nii lamba mën na dox ëllëg ba ñu bokk ay adversaire mais ñaanaguma suñu borom loolu léegi de kon donc dama war a foncer yoon bi dafa xat lool làmba xam nga lan la daan dem daanu xaar. waaw fi lamba toll moom looloo lan ngay wax waa Yoff. di leen woo rek di leen lancer appel di leen wax ne man doomu Yoff laa aw ma itam lu gën a rëy yoof lu ma am itam guddi guddi Yoff laay dellu. combat bi ak combat yëpp yi ma jëm bu ma amee ndam Yoff moo am ndam bu ma ñàkkee ndam Yoff moo ñàkk ndam kon donc Yoff affaire bi kenn jiitu leen si. bu weesoo loolu nag damay lancer appel sama sëriñ yi fépp fu ñu nekk si àdduna rawatina ñu ahlul kunti ndax man ñoom rek laa am seen maam moo jëli woon sama maam Mali indi ko Sénégal donc kon bu fekkoon dafa dagan nit di am jaam man seen jaam laay doon mais yaam yàlla rek moo yayoo am jaam maa ngi leen di lancer appel di sàkku seen ñaan li ko daggee kunte fépp fu ñu nekk si àdduna li ko daggee waa ndànk guyet sanc na ndeer ba yëg si njaasaan di tàll samay loxo sama sëriñ Cheikh Mohamed Raphaël wul du Cheikh Abdourahmane bu di ko wax mu ñaanal ma ak rakkam yu baax yëpp xaas Boubacar ak Cheikh Sidil Muxtaar wul du baay bu ak kunte yëpp xëy na dama siy tudd ñii ndax ñii laa si gën a xam mais bari na yaatu nañ Seydi Hamza Mouhamed Diadji ñëpp maa ngi leen di tàllal sama loxo di leen wax nañ ma ñaanal waa tund jandeer bi njabootu Serigne Mor Dieg yëpp am ma seen fay waa kër Seydina Limaamul Mahdi ñëpp koo xam ne daal yàlla boole na ma kóllëre ak ñoom maa ngi leen di tàllal sama loxo di sàkku seen ñaan séréeru Moralan yi tamit aw ma lu leen gën a rëy ndax sama way ju bu foofu la bokk xam kon donc man ñoom laa am maa ngi sàkku seen ñaan di leen wax nañ ma ñaanal amuma itam lu dul ñoom la reste dinaa ko mottali. lan ngay wax caat. na waaj rek. lu mu waaj doyul moom xool kay. waajal loo waaj doyul. loolu doo nga koy wax. waaw. amuma benn sentiment sama diggante man ak moom sànq combat mu ngi am. bu weesoo nag après ñu nekk jàpp mais en en ce moment amuma sentiment sama diggante man ak moom. mais man su ma la déggee ni ngay waxee dafa mel ni dafa feneen foo teg sa bët fu dul ci caat te bëgg nga koo liquider doo ko mën a lijjanti loolu. mais man moom ni muy waxee duma ma waxee noonu li ma ñor te wér ma mooy moom laay bëreel moom moo ma intéressé. Ah, moom li mu la jéggi di wëri leneen yow. waaw mënu koo tal talagu loolu. ma loolu caat rek saa bu ma demee jàkka julli fajar ba pare ba ñibbi suñu kër su ma toogee ay vidéo rek laay teg di ko seetaan kon kooku ñor na ma. mujj combat na la. tactiquement techniquement. daf ma jaral. mais caat ndeke caat yow am nga problème de man bi ma déggee gars yi bu waxee gars yi yuuxu damay xam ne kii xel mi daal daal mais yow ak ni nga jëlee combat bi o sérieux nii man man man xalaatu ma woon na di boo julee fa toog sa téléphone caat rek caat rek ngay seetaan. caat kese laay seetaan caat kese seetaanu ma keneen seetaanu leneen caat kese laay seetaan parce que moom laa amal combat. moom yi muy wax ay ay ay ay gan ge ay yooyu yooyu c'est des yooy yooyu ay petits détails la si combat bokk si sax na ma respecté xamuma ndëg. da nga jàpp ne respecté loolu moo tax mu naan seetaan naa muy wax ay comme si que nee na man xaw ma xaw ma lan daf may déranger hey. Ah, bi muy takk man la moom ma war a déranger si caat kon ma gën a ñàkk a fayda. na moom mooy le golden boy de l'arène. c'est son problème. je suis lutteur je suis fier d'être dafa am lu ngeen nuróole wala dafa am lu ngeen bokk. bokkuñu tous bokkuñu dara nuróolewuñu dara. caat la tudd nekk ëllëg booy bambara ma tudd moo Dia nekk écurie Yoff làmb nag moo ñu boole gis nga nit ki loolu boo bàyyee lépp ngir dara dangay ngay jàppalool ngir lépp. moom dafa am fu ngeen a tase moo tax mu naan affaire bi da lay déranger fulaar bi muy takk. non non non non yooyu moom xëy na moom moo nekkat yi kii yooyu noonu rek xam nga ah bëggoon na toog xam nga comme ni ko gars yi di wayal lool ay li tax ma topp laa si yow hee. Eh. Hmm. waar bi di suuf la sax. dama ko dama koy suivre barke Borom Ndiassane dama koy suivre de complexe wu ma wax ne dama koy suivre bu baax dama koy suivre ba entraînement damay yónnee ñu ma koy suivreal. mais loolu ma yaakaar dañ na ci làmb. ma may miine di suivre di def lépp daf ma jaral. yii de ci ay ñoom Modou Lo laa daan dégg sax dégg waxam na gis ne ci laa ko daan dégg mais da ngay yónnee ñu koy xooli ngay dem di miine ji baa wóor na. caat ba tuddam dama yónnee. waaw tudd moom tudd moom yëg naa ko. bu làmbajaa dinaa ko wan lu nga xamante ne dina jaakaar ne <laughs> wax baaxul. <laughs> balaa mbaja <laughs> kon tudd ba say say say ndaw ngi lekk si laaxe añ si ceeb yi ñibbise. tous du xew ndab rek. barke borom jaasaan ragalu ma loolu. gis ngeen làmb ngi nii làmb daal dafa baaxoo yi li may wax chaque jour rek làmb dafa laaj ambiance làmb dafa laaj culture làmb dafa laaj kaf foo agré dafa bokk ci loo xamante nii daf ñuy eh, dindi stress bu baax a baax baax baax ñun ay mbër ñu tuus daw daje jàkkaarloo mais naka nga gisee arène nationale bi parce que da gise gis des fois mbër bu nekkee ni ba nekk nii des fois dañuy bëgg a tase sax mais euh, policiers yi wala gendarmerie yi dañuy dox seen diggante est-ce que loolu na ci luy doxal làmb waaw parce que ñun mbëri ñoo war a xoolaat suñu bopp rek bu ñu xoolaatoon suñ bopp rek kenn du ñu àtte ndax loo xamante ne gëm nga ne yow yàgg yàgg yéen ñaar arbitre day soufflé mais jarul ay coo di yàq ay yooyu noonu. parce que dafay déranger quoi et puis nit ñi nga xam ne dañuy seetaan waruñoo nangu toujours ñu dëkkale ñu waaye mbir yu dof yooyu. c'est pas joli nit ku baax du nangu lool ñu lay xas si li nga xam ne moom nga ne hey basketteur bi dafa nekk NBA di fay ko ay millions professionnel bi nekk si euh, championnat yu mag yi di fay ko ay millions si football ñun ay mbër lañu li ñu am nañu ko doyloo. bu ñu complexel kenn si àdduna ah man de bokkuma si bokk bu ñu complexel kenn si àdduna et bu ñu nangoo def dara lu ñu nit di xeebe mbaa mu ñu koy yabe da ngay seetaan ay mbër yu nga xamante ne des fois dañuy wax ay wax yoo xamante ne man sax damay rus. parce que da bay na ci signature parce que dañuy bëgg a wax loo xamante ne lu lu nit ñi di di waxantoo la te or que du ko jar quoi nit fexe la wax lu nga xam ne dëgg la si yow rek. bu la jouree itam nga def loolu mais bëgg a ay mots yoo xam ne wala bëgg a fee wax loo nga xamante ne nit ñi dañ lay waxtaane nga yaakaar ne buzz la buzz la waaw que ñu ngi lay waxtaane mais dof lañ la jàppe nit da ngay respecté sa bopp boo bëggeeñu ñu la boo nawloowul sa bopp kenn du la nawloo xàcce boo gis ndag wërsëg waay alaa kulli xaal làmb bi ku si sa wërsëg nekk da nga koy jot ku mu si nekkul tamit feneen nga koy jëlijee gis ngeen nii la ko mujj a waxee kàddu yu rafet na sell na mais boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon ñu tàggatoo ba beneen. non di remercier fi ngeen ma fekk rek di remercier sama rakk ji nga xam ne moom ngeen ma fekkal mooy ñu toog bëgguma tudd turam parce que làmb moo doy waar. xam nga euh, ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñu may bàyyi xel ñëpp. di leen lancer appel le na ñu ñëw en masse supporter suñu borom defal ma ndam si kaw sama adversaire. gis suñu borom defal ko ndam ci kaw adversaire am ah, làmb ji daal li ci des moom bàyyeetul xanaa di jaajëfal sama cameraman bu bu bu ñaawul bi nga def fu ma ko fekk sonal ko ak waali c'est bisu ah doom nday Lat Diop kontaan naa bu baax a baax tey moom macha allah xanaa nag maa la war a jox xaalis bu bari kontaan naa ci yow bu baax 4-4 climatisé nañu yóbbul wasaare moom lii jiile amu ko sëñ Bas amu ko dama koy wax ci kaw aadam amu ko baabu sax amul lii en kàggu doo wax waaw <laughs> kontaan naa di leen jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.